والقناع كف الكداء والبعراء قائدا ci gën a marqué nga xam ne du dañ ci man mooy jàng naa ba tey nit dugg ci lislaam doonoon du woon ab jullit dugg ci lislaam man tuubal naa fukki nit ak ñett ci xasaayid loolu rek doy na sëkk ab liggéey dugal kenn ci lislaam rek doy na sëkk ab liggéey dugal naa ci fukki nit ak ñett ñaar ñi ay tubaab lañ ñi ci des ay africain lañ am na ci ñoo xam ne Gambie am na ci ñoo xam ne Côte d'Ivoire la ñi ci des Sénégal am na ci ñoo xam ne maa leen tuubalal sama bopp ñi ci di jigéen soxna jaare laa leen tudde ñi ci di góor sañ tuuba ba daaw rek ci weeru safar wi hmm. ci Petersen rek tuubal naa fa nit tuddee ko sëñ Touba ci man mii la jébbalu kon loolu rek doy na sëkk booy booy xalaat lu la lu la lu la ci marqué loolu doy na sëkk. wal